jàll euh, ci yéen kaay yeeg seen i xët ci ndimbalu euh, Mame Birame Diouf ñu ngi lay gërëm ci euh, toogaay bi xam naa ni yàgg na waaye balaa ngay dem dañu koy njëkkee ak l'observateur premier quotidien fii ci Sénégal sànq wax naa ko l'observateur mi xëy ak nataaluk Karim Wade xëy ak lii mu tuddee ci français massacre aux Sénégalais message plutôt aux Sénégalais Karim des lettres trois points de suspension sans voilà Pape Cheikh euh, merci wax nga ko kon euh, suñu nattango yi wala observateur xëy xës fët euh, kon génn foofu si xët gu njëkk ki ñeel Karim Wade ak boobu ak léegi bataaxale nga xam ni kon dina koy joxe di koy bokk ak askan wi ñu nekk ci presse di koy jottali kon gis nga yéenekaay yi ak la nga xam ni kon ñu ngi ko ciy wax waaye lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ni fa nii kon bokk na ci ay tawat yoo xam ni kon ñu ngi koy teg xale yi tout tànk yi kon ba tey PDS ak seen fédéral nga xam ne def nañu ko ngir ñu cee taxaw laaj sax kon procureur it moo autosaisir ngir kon lu leer mun a am ca Sénégal yi nga xam ni euh, ca bitim réew dinañ fay ñàkk seen bakkan. match de préparation sunu gaynde yi ba tey mu ngi ci yéenekaay bi di l'observateur yéenekaay baa nga ñu xamal ni match yi euh, ci waajtaay bi euh, liñ ci dépensé wala liñ ci nar a frais na toll si ci cent dix-huit millions de francs CFA et puis l'observateur ñëwaat na ci rajo King FM sànq rek yaa ngi koy wax ci journal bi démb rek lañ doon amal ab conférence de presse jëm ci waajtaayu bi nga xam ne ni Euh, moom la ñu tànn euh, euh, pour màggalee ko bis lee dégg nañ ci ki nga xamante moom la ñu dénk programme rajo bi muy Boubacar jàlloo donc lépp ngi ci l'observateur bu tey bi tey 22 mars mooy bis bi ñu jagleel ndox muy journée mondiale de l'eau wax nga ko aussi ci sa ñaari journaux yi le quotidien ci la xëy tey ginnaaw nataalu ko robinet ak SDE mi ñu denk lépp lu jëm ci wàllu gestion ndox bi ñoo ngi liir ci xëtu yéenekaay bi ci France ni gestion de l'eau du Sénégal combat de mu ngoog ndax it euh, bëri na euh, lu ñu ciy amal politique bi maanaam Pape Cheikh gën a kon defar infrastructure yi lépp lu jëm ci euh, jotum ndox mi ci biir réew mi fépp kon ñu gën cee taxaw waaye teewul jafe-jafe yi day wéy ba léegi kilifa yi nag di àddu kon ni demande bi ñaari dinay fort waaye lu jëm ci matériel vétusté bi laaj kon ñu defaraat ko koppar gu bari la ba gis nga kon lu jëm ci bëccëg nga xam ni kon moom lañu ko jagleel kilifa yi nekk ci SDE àddu ci it xool ana naka la SDE war a gën a taxaw ngir kon liggéey nga xam ni mu ngi koy def boole ànd ceeg mbooleem ay partenaire am ñu gën am doon loo xam ni kon day dakk problème yi ci gën a metti nag mooy ñaar yi nga xam ne euh, ko lépp lu fi xew rek <laughs> suñu loxo ngi ci euh, journée mondiale de l'eau daañu waxtaan ci nga xam ne ni am nañu ko te war koo saxanal ba pare di ko yàq sama classe gi am ci itam ñoo xam ni amuñu ko euh, ñu ngi koy wut alors que ñu ngi 2018 am ci ñoo xamante ni am nañu ko waaye bañ ca am baaxul boobu la tubaab tuddee eau non potable muy jur ay jàng jàngoro yu bëri donc tey euh, on parlera de cette journée comme ni ci euh, le quotidien xëyee tey ci euh, xëtam las moom xëy nag li la mbéréew mi yëpp muy lii ñu tuddee psychose générale jëm ci enlèvement et meurtre d'enfants un enfant a été enlevé et retrouvé à Guédiawaye benn 4x4 bu ñuul itam fi mu ne mu ngi terroriser nit ñi ci benn koñ société civile il paraît à l'assaut des malfaiteurs loolee la las xëyee tey ci xëtam ci français mam mbiram Pape Cheikh Las foofu la gën kon gis nga xel yi dalatuñu ndax it ñay def ñaaw tey fii Samba Boy yooyee nga xam ne sax kon police ak mbooleem euh, kon ñu yëngu ci sécurité bi taxaw nañu ngir kon topp leen teg leen daan ndax it la ñuy def euh, doy na kon te ba nga xam ne kon askan niñ koy dundee métti na trop ak xale yi nga xam ne ñaareel di leen di këf gannaaw gi seen i njaboot gisaat leen waaye ña nga xam ni dinañuy faral di nekk ci ay woto ba ci 4 x ni surveillance bay ñeel xale yi nga xam ni kon xamuñu dara mënuñu sax défendre kon war a jege gën leen teg gët ngir lépp loo xam ni jëm na ci lu ni mel loolu loo xam ni daal kon dina fi jógee fii ci biir réew mi. yéen kaay bii di Dakar Times xëy nag li àdduna di waxtaane ñaari fan yi muy euh, ki fi nekkoon président France Nicolas Sarkozy démb la ñuy xamal ni euh, nekk na sous contrôle judiciaire ginnaaw bi ñu ko dégloo euh, ci ñaari fan li ñu koy tumal bokk na ci financement supposé. ci euh, campagne am euh, ci digganteem ak ki fi nekkoon président wu Libye te nu faat ko muy euh, Khadafi yéenekaay bi di ñu xamal ci xëtam ci français Sarkozy Khadafi la preuve du financement libyen. mu ngi wax nataal bi kon ñaari kilifa yooyee la nga xam ni coow li ñoom la ki ci des kon di Nicolas Sarkozy ak campagne am googe nga xam ni atum 2007 def na ko ba jëlee ci ndam ak koppar ga fa mu jugee ñenn ñi kon am yaakaar ni que ni ca Mohamed moomee la lu jëm kon ak it blanchiment kon jëm ci xaalis googu nga xam ni kon ab financement la daal guy ñeel ni dafa lewul tax ba moom njiitu réew France ba woon ñu def ko en examen ak lu jëm ci euh, placement sous contrôle judiciaire bi nga xam ni kon moom la ko def kon gis nga juge daal bëgg nañu am ci lu leer di koy déglu ak it topp enquête bi ngir xam exactement euh, lan moo ci nekk. voilà comme disait l'autre escroquerie n'est pas qu'africain mm. donc il est placé sous mandat euh, sous contrôle judiciaire Nicolas Sarkozy enquête xëy na ak wàllu politique ak lii mu tuddee euh, débauchage d'anciens euh, caciques du PDS ñu ngi lire ci xëtu enquête ci français Macky sal et l'héritage de Maître Wade. mu ngoog mu ay doxalin yoo xam ni kon dañoo jàpp ni daal moom euh, njiitu mu mi fi nekk di Macky sal doon loo xam ni daal noonu loo jële na ko kon ca njiitu réew ba woon di Maître Abdoulaye Wade ndax it ku ko jégale woon di liggéey ak moom Maître Wade ak ko gi nga xam ne amoon na ci moom ba sax moom président Macky Sall doonoon directeur de campagne lu bëri loo xam dina koy jëfee ci mbirum politique gis na kon lu mu jàngala ci maître am jàppale ni kon maître Abdoulaye Wade ak ña nga xam ni ñaareel dinañuy jógee ci yeneen parti rawatina euh, ci parti démocratique sénégalais ma nga wax léegi kon ak ñu bëri ñoo xam taxaw nañ daal jamono ji mel ni dañoo bëgg a ànd ak moom ci liggéey nga xam ni kon sumb na ko euh, fii ci biir réew mi ku jeegaa ngi waajal tàngal yéenekaay bi di les échos maître Abdoulaye forte, foudroyante. mu nga kon les échos foofu it ak taxawaayu parti démocratique sénégalais ñoom nag bëgguñu benn yoon des kannaaw te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg lu jëm ci système parrainage googee nga xam ne ñoo jàpp ni dañ leen kaa bëgg a imposer it ab mbir la xam ne daal bu ñu ko defee dañ naan transparence ak it élection démocratique kon léppay am ba mu des loolu ndax it signature yi ko nar a jëfee loolee kon dalu seen xel tax kon ba ñoom ñuy yëglu démb xamle ko seen comité directeur ëllëg it ak toggaanu ñaxtu gi nga xam ni kon bëgg nañu ko def ca màkkaanu ministère ministère de l'intérieur lépp kon ngir daal alerter opinion nationale bi internationale ngir a wax kilifa yi ñu tegu ci yoon nga nga xam ne nii moom ñu bëgg ñu jëm ci élection yi di ba tey ci xëtu yéenekaay bi di les échos ñu ngi ciy gis euh, nataalu coach bu équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé ay kàddoom la yéenekaay bi xëyee bu ngeen liiree noonu ci kaw mu ngi ci naan même si nous euh, n'atteignons pas les quarts de finale trois points de suspension. waaw am nañu jàpp ni Pape Cheikh ab reculal ambition bi dafa mel ni gënoon na sori waaye quart de finale kon jàpp ni moom coach bu ñu sukkandikoo ci yéene kaay bi que bu ñu fa àggee sax dafa mel ni kon performance la baax na waaye teewul daal yéene bi mooy ñu dem euh, ba ci kanam maanaam kon gën a sori coupe bi andi ko fii lu mën a nekk la waaye coach bi daal am na yaakaar ba tey ak équipe nga xam ne kon fu toll nii mu ngi koy nas lépp war a dem euh, ci Russie bi. match waajtaay bi ëllëg lay am ca Casablanca ca stade Mohamed V mu ngi ci Konaté est bon titulaire euh, touché au genou Diao Baldé ménagé loolu la yéenekaay bii di record xëyee tey ci suba gi Mhm. kon gis nga gannaaw Gana blessure ga ci am waaye moom it Diao Baldé Keita ak blessure am googu nga xam ne kon boobu moytu daal doon partant ci match bi nga xam ne kon Sénégal ak Ouzbékistan ëllëg foofee amal ba tey ci weer bi wala laale kon ak Bosnie Pape doon ay jongante xaritoo yoo xam ne am na solo ndax dina tax kon gaynde yi gën nekk en gouvernement bu Sénégal fere na lu toll ci euh, ay millions yu bëri ñii ne 115 des ne 118 millions yaa day dox ci lépp loo xam ne jëm nag ci tàggat yaram lu ci des nag dañu koy bàyyi ak Mamadou Mohamed ci xóotal bi ca kanam euh, ci revue de presse bi lay doon ci diggu bëccëg bi ci télévision Futur Média maam Birame ñu ngi lay gërëm bu baax